Salam alaikum la famille j'espère que vous allez bien moi je vais super bien je suis gâté j'ai honte pour la justice sénégalaise j'ai honte pour les gens qui ont été en train ci dëkk bi Assane Assane Faye mi ñu bi ci ci terre bi à cause de ça bravo la gendarmerie bravo procureur def ngeen liggey bu ama ama am solo wallaay ndeysaan ndaxte japp ngeen criminel bi gëna reuy ci senegal japp ngeen ki nga xamanteni mo gëna nek danger pour le senegal wallahi ndaysan danger bi moy kan danger bi moy ki nga xamanteni ab di doole la ko dóorkatuwaar di wut lu muy dundale bopam ak lu muy dundale juroom criminel bi moy kan ki nga xamanteni bu desoon ci mom dong terre bi do am client teeru jamaa bi do am client ndax na ci qui est le danger et le criminel bi gendarmerie def liguey bu am solo danger bi moy ko euh, en tout cas félicitations pour efficacité c'est ridicule c'est vraiment ridicule et le ridicule ne tue pas mais vraiment du lañ xaar la justice sénégalaise non non non procureur na ay mbir yu lay xaar yoo xamante ni moo gën a priorité ëpp njariñ yow kilifa gi nga xamante lañ la def kilifa la def yow ak sa dayoo fi mu toll ci réew war nañ la di yàbbi di warax ci leneen lu ak nit bu dégradation des biens publics est un délit tout le monde est d'accord. mais yéen kii bi ngeen ko dégloo ngeen seetaat ko bu baax xam ngeen ni kii yàq taxu ko jóg xam ngeen lii mu def c'est involontaire tay ko defu ko exprès mais seen njàmbarte ci lu ridicule ci loo xamante ni amul njariñ ci néew di doole moom ngeen waneeti nii te gis nañ ko. bravo. waay s'il bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñooy dégrader économie réew mi di tuur alalu réew mi di këpp kees di sàcc alalu askan wi.

man j'ai deux questions à poser le gouvernement I have two questions for the government première question lan motax defo len communication bi nga xamanteni mo war ci terre bi de A à Z pour xamal sénégalais yi nan ak naka lañuy duggé nan lañuy démé ci terre bi comme sa 70 ci sa population dañoo illettré mënuñu lire deuxième question ni, ni hôtesse yi man xawma lu ñu nurool ni lan mo nekk sen utilité lan mo nekk sen njariñ ci terre bi comme bi ceeb bi tuuroo gisuma leen ñu tonni lii mooy samay question that's my two question alors comme Hassan déféré nañ ko à cause de ça ñi nga xamante ñoo doon contrôler ñom dara du len ci fekk ñom lan mo nekk sen sanction en plus bu fekkee da ngeen di exiger civilisation et ce qui est très normal ci terre bi lan mo tax sen organisation cuune ba buuxante di am ci biir terre bi parce que buuxante su demee ba am foofu noonu rek ak li ngeen di exiger nii ça veut dire que organisation zéro. yéen ñi nga xamante ni aussi yéen a ko doon filmer di ko tas di ko saaga ci internet bi j'espère que vous êtes fier actuellement vous êtes contents seen xol sedd na. alors Hasan, bon courage Sénégal gi yëpp yow la ñu àndal jaamu yàlla nga te jullit nga te yàlla ki mu gën a bëgg dong lay teg nattu donc du yàgg dara bu soobee yàlla di nga fa génn. te man mag bi maa la ko wax bis boo génnee te yàlla na nga fa gaaw génn di nga xam ne sénégalais yow la ñu àndaloon te lépp loo xamante ni mën nañ ko def muy lu néew wala mu bari dinañ ko def pour jàppale la ko bu soobee yàlla bon courage yàlla na la yàlla génne foofu noonu ci nu mu gën a gaawee. li may jeexalee nag mooy di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax la justice sénégalaise ci seen efficacité seen ñàmbarte ci pauvre yi seen ñàmbarte ci li ridicule Je suis leen bu bu ama dans l'histoire du monde Sénégal dong moy Je doomu content. pourquoi parce que dafa Je suis ba pare di baye ñi nga ni kepp alalo askan wi. c'est grave. Hein? non Diouf tay content de vous. ci yow. Adji réclame justice. Mais je suis sama jamm ak Son du Eh, soko <laughs>